en en premier c'était euh, arrestation journaliste yi nga xamante ne gis nañ ko mais euh, mbàbb na ba dem fi nga xamante ne moom moo bokk euh, force spéciale yi jeunes yi nga xam ne arrêté nañ leen ci manifestation yi il trouve que voilà si si il rejoint les accusations que ils peuvent être des terroristes. foofu faaw ma xaw ci ubbi benn parenthèse donte dinañ ci wax ci avant dernier point bi. ndax mhm. yaakaar naa ni foofu dinañ mën na ñëw comme dugg nañ ba mhm. ndax moom nee na mbirum terrorisme il est agrégé en droit loolu de. waaw nga ne. maa ngi lay déglu. je ne t'ai pas dit que je suis agrégé en droit madame les les mots ont leur signification. maa ngi lay déglu mm. gàggante. waxuma la <laughs> ne la j'ai fait un master en relations internationales je mm-hmm. en relations internationales. te dugg fi benn yoon agrégé. waxuma leneen. ok c'est mm-hmm. bon. maa ngi jégalu man maa la déggutoon bu baax. waaye yàlla def na ni. Euh, boog yaakaar naa ni ñi fi ëpp ci ñi fi toog. ils sont agrégés en bon sens parce que dafa am loo xam ne loolu la bon sens maye te li nga fi wax nii yëpp jotewul dara ak bon sens. parce que tey soo nee wàllum terrorisme ñu ci mel ni force spéciale dama ciy dugalaale sax kaawu commando yeeg yooyu. Mm-hmm. ne loolu ay acte terrorisme la. Euh, da daf may jaaxal ci yow mi nga xam ne par exemple yaa ngi ànd ak yi parce que amul ñenn ñenn ñi ëpp boog ci ñi ñu jàpp amul benn action boo xam ne def nañ ko te Macky sàll wootewu ko woon. balaa muy yëg ci pouvoir bi muy wax ci sànq wax nga ba leeral comme quoi que bëri na luñ ci changé surtout ci côté internet bi mais d'accord mais ma Macky sàll fan la doon jàllale ay information wa fan la doon wootee pour nit ñi wàcc ci tali bi su dee Ablaye Wade deful li yoon wax mais ci internet bi la ko doon jaarale mais au moins Ablaye Wade et un grand homme am na yoo xam ne daawu ci topp nit am na yoo xam ne daawu ci toroxal nit parce que Macky Sall yi muy def li ci ëpp toroxal doomu aadamam la ci jublu ñun noonu lañ ko considéré tey ñi nga wax nii yëpp ni ñoom ay terroriste la non du ñu ay terroriste ku ci mel ni maman Amidia transaction yi ngay tàmm di def sa téléphone di ko yónnee nit ci loolu lañ ko jàppee ndax lan dafa yónnee nit xaalis ñu ne moom moo doon financé force spéciale yi nga tàmm di def tey nga lu mel ni cocktail molotov mën na déstabiliser sureté mais parlon des nervis ñu ngi vaquer à leurs occupations ñaata photo wu nervi lañ fi génne ñu yor paaka wala yor ay armes te ba léegi ñu ngi vaquer à leurs occupations ñooñu ñat nan la ñu nekk di di di di di xoqatale askan wi nan la ñu nekkee di violer di di di violenter nit ñi di violer seen paisibilité ba nga xam ne moom la ñu waroon a am kon kan mooy terroriste c'est que yéen da ngeen di abuser de terme terroriste. madame ngeen ko yóbbu non may. non non vous la laissez finir vous la laissez finir monsieur Ndiaye. non may ma ma ma yàlla amalgame dans ce qu'elle dit. non la vous la laissez finir d'abord amalgame dans ce qu'elle dit. ana amalgame bi elle vous a écouté avec beaucoup de souffrance et tu vas la laisser finir vous allez la laisser la laisser finir après mm-hmm. vous allez continuer. imam Badara Ndaw duñu bu taayee pas la laisser continuer à raconter mais monsieur euh, monsieur man maay gérer plateau bi ah. bàyyi ko mu pari après yow booy répliquer nga répliquer d'accord imam Badara Ndaw un peu d'élégance au fait. jàpp nañ ko fi ñaata at. libéré ko lan la ñu defaat après. feebaram yooyu mu traîné ca ba muy nekk kaso tey moo ko yóbbu fa mu nekk yàlla na ko yàlla yërëm te xaari ko àjjana te ba tey nangu woole nangu woole am franchise u wax réellement ce qu'il en est gis nga li ngay bañ ñu teg ko sa der bu ko teg ci deru jàmbur ña fa nekk ña ñu accusé de force spéciale de commando foofu du seen place du yoon te du ma yàgg ci sujet bi parce que pour ne pas faire hors sujet dinañ ñëwaat ci sujet bi après. Mhm. pour cas wu euh, Pape Ndiaye. Mhm. moom dañ ko jàpp ci ay exercice su fonction wam mhm. mooy liñ ko jàppee mooy liñ fi lim nii yëpp daanaka en direct la ko defee n'est-ce ci émission. waaye léegi ndéem jàpp nañ ko ci loxo ci poos lu tax ñuy ubbiwaat information judiciaire. te demul flagrant délit. waaw jàpp ci loxo ci poche lim nga fi lu tax jugé wuñ ko directement. yaa def lii lii mooy sa daan léegi lu tax ñu yóbbu ku ñu ubbi information judiciaire lan la ñuy wutati lu ñu amutoon ci direct bi lan. <laughs> là c'est une question les juristes vont te répondre. non non c'est une question yow mi lim loolu lan la ñuy wutati lan c'est que soyons sérieux nañu éviter gis nga liberté mooy la nga xam ne nit mënu koo jënd nit mënut a xam valeur am kaso dafa métti ka nga xam ne tey dañ koo xañ njabootam xañ ko li gagne-pain wam dafa métti. imaginez kooku ñaata nit la doon dundal léegi yéen ngeen sañ a toog di défendre l'indéfendable lañ waxante dëgg am na loo xam ne ngor waru koo may nit dañ koo tooñ ndax c'était dans l'exercice de ses fonctions il est journaliste am na droit waxte bañ a révéler ay kii wax ay sources ñu jàpp ko ci tegal ko ci ñaata chef d'inculpation war koo juger ñu ne non dañuy ubbi information détournement de procédure boobu pour lan jànguñu droit waaye xam nañ lan la yoon wax amuñu doctorat suñu amee master tamit ci beneen domaine la mais xam nañu lan la doon wax lan la yoon wax mooy lan nit ki ak ak yelleefam jox ko ko ba mu mat c'est pas parce qu'il est opposant ko dañ koo war a tëj te ñi ngi fiy woon nii yépp c'est parce que ci opposition du ma ne opposition bi lañu gën a la gën a féete mais en tout cas ils son avec le peuple léegi nag libre aux journalistes de choisir leur camp soit ils son avec le peuple wala ils sont avec gouvernement te yaakaar naa ni ñoom ñëpp ci bi ñuy exercer seen kii lenn moo leen taxoon a jóg mooy nekk avec le peuple c' aussi simple que ça amul de <coughs> chercher de midi à 14h jarul lire texte jarul dara c' est aussi simple que ça mooy soit da ngay nekk ak peuple di di informe juste et vrai. nekk ci dëgg wala nga ànd ak nguur gi mu lay soudoyer ngay wax lu lu ko lu ko arrangé wala lu ko neex c'est aussi simple que ça ah, soxlawul ngay am doctorat wala master wala da question rebondir si sax waa dinaa si ñëw mais di rebondir si li Yolande wax Sidi Lamine sax moo ñu ko njëkk wax suñu patron du Sidi Lamine du kenn